nekk nitu daraja yàllaa koy def xam nga Sadat bi muy jël pouvoir bi gannaaw faatu Nasser ñu bari dañu commencé sax di gedd ndax ni dimension Nasser ku ko amati fii newu fi moo tax bi mu ko jëlee ñu mel ni ñoom Henry Kissinger ak ñoom ñi mel ni ñoom ci administration américaine bi tolloo woon nag ñoom Jimmy Carter dañu mujjee di ko tuddee clown politique moom moom Sadat parce que euh, fi mu tok la Nasser mi fi jóge mu ñëw tok fofu ñu jappé ko kulun politique rek joxuñu ko ben importance mais kérok bi mu duma Israël ki la guerre d'octobre seul te Nasser échec te boobu mu ngi ànd ak Syrie ak Jordanie ak Palestine échec 67 Mon modèle dellu si ci guerre d'octobre boobu duma Israël keroog les apparences sont souvent trompeuses Comment est commencé ko jox importance nag Jimmy Carter convoqué ko moo ko waxal ci interview ma ni na nit ko nga xamni relation bi ma mujjoon am ak sax dama ko don administration américaine parce que politique monu ko gérer ah. ndax ku ko gis ni dang koy dof te li ci bop bi ëpp na ba ci pour mu Faire instaurer paix entre l'Arabie et Israël mais Mohamed, instaurer paix globalement sorti. sotti entre l'Égypte et Israël et malheureusement problème bi posé pour moi du signer paix avec Israël mais nasseriste yi ñi xalaat ni Sadat dafa bëgg jëlee fi Nasser te booba Nasser toll na ci waxuma la sax ci Égypte mais ci al alam al arabi pour nga raxas ko ci bopp nit ñi dañuy defe ni c'est de la folie waaw nasseriste yi nag jóg parce que comme réussir na li mu réussir te Nasser réussir ko woon ñu ni kii buñ ko bàyyi rek àdduna tukki ñu jóg nag di seet di seet naka lañuy ñuy damme tànkam mais moom it erreur bi tax loolu mën a nekk mooy initiative bi daf ko jël unilatéralement te mooy signature paix bi naka la ko def rek naseeriste yi nag jóg waxuma la biir Égypte waaye ñu fexe ba al alam al arabi ñoom fay ak ñëpp xëy opposé ko waaw ñëpp nag ñii naan kaafir la ñii naan lu ne lañ ko traité de tous les noms ba mujj ndeysaan ñu koy isolé di ko isolé ndeysaan man li ma gënoon neex ci moom mooy bu daan julli ci jardin du lal sajada noonu rek lay te il était le président

mu ni ko mëntaal sama ruux dafa namm dajeeg sama borom waaw mu ni ko waa naka ngay waxee lu toll noonu yaa ngi yore responsabilité bi nga yor lii la yaakaar yaakaar la yaa ngi yor sa famille sa soxna say doom say sët naka ngay xalaatee loolu mu ni ko amatuma fi place mu wax ko jabar ji amatuma fi place mu ni ko inna aradna al amanata على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وأنا الإنسان اليوم أنا أنا الظلوم الجهول كموتا دنا ديك تربونتي وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ونجحنا انا ذلك الإنسان اليوم أموالا كتاك نتفكو كودة تابي مودة بكن يباري تدالة بس كروح حمد دم كي كسا كسا بور وحلا بو ديكلو ديمارش وحبيرك l'histoire se répète mais comment parce que les jours suivent mais ne se ressemblent pas et ce sont les jours qui constituent l'histoire les jours de gloire ou les jours sombres avons def et les jours se suivent mais ne se ressemblent pas yaay xam nak nokay ah. Bi taxna différence bu ma ko expliquer dañu wax ni doxalin bo gis mo xam bu la moo xam bu politique la moo xam bu mu man doon dafay xaw di nuru sport national bu réew ma ñu gis la différence entre Barack Obama et les autres chefs de l'Europe une différence ci basket lañ ko guéné parce que basket presque moy sport bi gëna a foofu aux États-Unis gannaaw football euh, sen football euh, américain bobu la ñu ni nak pour ñu mëna xamé différence Barack Obama avec les chefs yi nekk Europe mu ni bo xolé ci basket bi rek di nga gis ñaari xeetu joueur joueur bu nga xamni likoy li koy intéressé mooy bu joggé feulé du nangu joxaat bal bi kenn fek demul ba ci pañe bi marqué ko ak joueurs yi nga xam ne xam nañu ni boobu du seen mbir paasante bal lañu xam kii xaar ñu paas ko bal nag bu ko nit ki rombee dem marke ji pañe te fekk laal bal bee ko yitteel al isharatu takfi al-ishaaratu takfi moo tax jamono bu ne li lay jariñ nga xam lan la fay bax parce que demain suivre aussi fan yële ñuy xol maanaam waxon na len fi gaullisme waxon na len la ca xew yëpp ak la De Gaulle wax ak la ma ci jox De Gaulle ci part de responsabilité mais fan yi may xolat benen documentaire nous wax ni le wëtul droite bi dina éclater te li éclater conflit entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin parce que c'est un conflit mu ngi bëgg qui xamul est-ce que conflit d'intérêt la wala conflit lan mais ku nekk ak la mu ci joxe mooy xalaatam mais li ma m'intéresse, intéressé la ci conclusion bi li ci un journaliste wax ni problème bi posé wu yëpp ci seen conflit mooy dañuy épreuve de force ak épreuve de confiance

élection 2012 ndax conflit bi am ñaari personnes parce que épreuve de confiance mënatul nek épreuve de force mo fi des te buñu demain démé gauche bi dana jël pouvoir bi yooyu da fay laaj ñu analyser di c'est très important bi ci dess nak waaw parce que dama ne woon une de temps rek lay def mu jeex waaw jarul guddal di François Hollande ci bi mu gagné primaire yu socialiste yi dañ koy interviewé surtout di ko laaj ci wàllu Europe xam na kaw Grèce ñu euh, comment dirais-je Portugal Italie Espagne parce que nous avons ñu suivre les mêmes crises mu ngi Europe zone euro nous ngi commencé à actuellement mais biñ ko laajee ci politique de l'Union européenne le surtout ci la Grèce je suis pour une économie ouverte mais je ne suis pas pour une économie ouverte. c'est très important une économie ouverte ok d'accord mais une économie offerte te muy lu ñu liggéey jox ñu liggéeyul ñu jariñoo ko toog di ñu xool boobu it du sotti mais gis nga loolu kooku ci yëpp la am ay nit du ñu liggéey li ñu liggéey ba noppi am résultat yi ñu am ba noppi ñi liggéeyul dara bëgg ni tey rek nañu jël yépp teg ko ci seen loxo mais kooku kooku xel du ko nangu hmm? du tere na ko war a sédd rek nga sédd ko mais am na lu kenn dul bazarder parce que du yoon waaw bu ngeen gisee yi xew ci kër gi yëpp dégg naa ñu koy soow sax naan Cheikh Tidiane lu mu bëgg waaw koo xam ne euh, xuloo nga ak bàyyi xuloog mag ñi xuloog say rak ba ci xuloog say doom mais xamuñu ce qui se passe parce que nit boo xamul li muy def rek lu la neex ngay wax waaw mais lu ne mën nga ko pardonner baye ko nit ñi ba mu des lim le wóor ni c'est intouchable c'est intouchable am lo xamni ne mayit buma ci amul woon droit sañu mako ni kon duma am 24 heures te wax nag yéen ngeen lu bokkul ak li mu wax ak man waaw ba daana kon nag bu ñu doxalee xel rek mu baax li ci des nag moo di la mu waxoon ni moom la ko Serigne Babacar Sy waxoon keroog bi amee ay amee ay événement ay ay ci kër gi ak la xew-xew te nee na mu xëy si di gis si sëriñ Babacar fekk kook xëy baam boobule nga xam ni bu jotee nuyu sax do ko ko ñemee def nee na mu ni tekki rek nee ma toog di ko xool rek mu ni tek ni tekk ba càgg mu soog a si gën a kooku tijaan ma ko mu ni ma hada amru mubayyatun bil leyl ndeysaan waaw mu ne ma noonu la ko waxee caara mu ni ma li xew de De l'obété. lu la mais lu ah, ça c'est autre chose ba kon nag kër gi transition bi commencé na a xam nag yàlla yor bakkan xam luy xew xam naa ne daal wan nañu ma ci gént ñiy dem kenn ku ne kuy jiitu ka cay topp diw diw diw wan ma ni ma soxna soo fee njëkk a dem moo tax ku defe ne dafa am yu ñu bett xamoo sax lu xew waaw soxna Zeyna bu topp ci wax nañ ma yooyu yëpp ba ci werante diw ak diw ku njëkk a dem ñu nekk nag di deewoo pour jëkka njëkka dem boobu boobule waaw ba tey nelawuñu ndax loolu te am na ñu fi ne wax naa kook ñoom waaw ñu ciy daj lu ne waaw te am na kon nag nañu ñaan rek te def sunu saraax rek te continuer sunu tarbiya rek te bàyyante xel erreur yi nag du ñàkk waxuma ci seen niveau mais man sama niveau sax day am erreur waxuma la par rapport ak góor gi mais par rapport ak daayira bi erreur manul nakk ñàkk peut-être waxin la dafa am loo xam ci sa nga koy commencer aadam keroog bi ko yàlla waxee wala qad ahidna ila aadama min qablu fa nasiya mu ne wallaay fàttewuma loolu la wax sunu borom billaay fàttewuma dama doon bañ njëkk koo def bu ma ko njëkkul def ba njaboot ji tas eh, mu taseeg ñoom ñu njëkk koo def day diis moo tax ma jëkke ko pour bu seen bos ñëwee bañ a diis waaw ah. mu jeex takk waaw loolu la tontu suñu borom ba tax na yàlla xam na loolu wax na ko sax yonent bi di wax na ko yonent bi ñi nga xam dañu fi jaar yani sax bokkul ak la ma la ma la ma bëgg bokkul ak la ma tëral wax na ko yonent bi ni ko waaye teewul bàyyi naa mu jàll ba ñëpp ñëw waaye bu ñëpp ñëwee ba noppi nag baalu ma ida jaa nasrullahi wal fatih wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan erreur yaag yëpp a nga ca biir waaye fa sabbix bi xamdi rabbik wastaxfirhu waaw innahu kaana tawwaaba

moo tax rek daw ca ba ngay amee tànk rek waaw ah, Serigne Ndiaye mi bis bu ne ñu waxtaan ci ndeysaan daw ca gàmmu ga waxuma gàmmu gi passé ba ca des waaw waxtaan yu sore waaw tax na ñu ngi ciy waxtaan léeg ak ñi ñu man di waxtaanal nga xam nit ni danañ am dégg parce que dafay am ñoo xam ne boo waxtaaneek ñoom façon ba ak nañ koy yóbboo def dul noona moo tax maturité bi ñu leen waxoon sànq lu am solo la waaw ah, xam nooy waxeek nit ñi ah ba tax na kon nag ñu ngi ciy waxtaan jamono yi léeg-léeg ñu am ñu ñu toogal ñoom ñii ñëpp fa tabarakallahu sëriñ bu ñu amoon jot mawoo ko téléphone ni ko nangam ak nangam waaw waaw ñoom ñëpp délégué mi Malick mi tabarkalla xalifa bi Babacar Thiaw bale tabarkalla Maodo Lo bile Bada mile fa tabarakallahu ba bi may dem voyage

bi ki des mooy ndax góor gi lañ ci mas a waxtaanal mu ni ma Alaaji Njaase Mbay moo ko ko wax waaw boobu dafa am ku ñëw influencé ko ni ko sa nit ñi ñu ngi leen di jël rek waaw sa nit ñi ñu ngi leen di jël rek ba moom affaire bi jaaxal ko nag mu ne ah, du ci du ci gaaw a wax fekk amu ci ndax ki ko ko wax si la wóoluwul ak it lum ci jublu fekk boobu doo ko bëgg a jaxe sekk yeneen kilifa yi nee na mu wàllaa ji njaasi ni ko waaw loolu diw wax ni ma diw dafay jël sama nit ñi loo ci xam elaa ji njaasi xaqataay ci kanamu góor gi ak li mu koy ruus rus xaqataay yooyu ni ko lan la mu ni ko yow mu ni ko seen nit na am <laughs> mu ko bu la rusul keneen ku taxaw ci kanamam mu def ko taalibe waaw mu ko moo tax ku ñu ni sa nit la ñu ni jël nañ ko rek xamal ni du sa nit waaw noonu la toll nga tax na kon nag bàyyante xel rek juumte yi sax bare na daw ca am ñu nga xam nit li ma waxoon léegi épreuve de force lañ koy def erreur la na ko xam ni bul xëccoog moom mukk waaw ah, da def lay xool di la yërëm rek waaw ah, am na ñu def erreur ci niveau yu bare waaw ah, waaye ñu seet rek parce que moom ci boppam yi dañ ci ma sa waxtaan fekk mu dem ba gis ni ndekkee dafa am stratégie bu ñu tëral te moo di ñoom ñi nga xam ni am na lu ñu lu séq ak moom ba wóolootul seen biir dañuy def ku ñu gis nii nitam la rek ñu jéem la jege jegelu pour que bu la bu la séenee foofa rek gedd la te bu lay gedd ñoom ñu xëcc la ñu mujj nag ku ñu bëgg mu mu bàyyi ko rek ñu jege jegelu ko fekk kooko talu leen sax waaye ñoo koy def noonu waaw gannaaw gi nag la ci commencé di ko seetlu nag di ca teey waaw mais yéen it ngeen bàyyi xel boobu waa am na ñuy def yooyu ñu jege jegelu yenn nit ñi pour ñu defa ni bañ leen a wóolooti waaw di leen isolé ëpp naa def bii période laaju ko waaw am na wax ne bis bu jotee rek ma leen di wax ni diw bokkatul day fekk ñu effacé ko ci liste bi waaw waaw la toll mais daana rek ku ci def erreur nag ngeen wax ko ko parce que yéen a koy faj waaw yéen nekk ci terrain bi yéen laa jox sama responsabilité ku ñëw dugal lu bokkul ak li ma tëral ngeen ni ko dulli bu téye ngeen jël seen responsabilité mais bu sanction jotee ngeen wax ma et puis c'est tout waaw ah. da tax na rek kon ngeen doxal ko noonu la ma cay xam sax booba leen ko waxee ngeen àdduna day tukki wax daa ci lu bari mais est ce que ça change dayre bi ma gis mom ku yow rek di ñaan yàlla yàlla di la ci boole rek waaw waaw man mi leen koy wax sax damay ñaan yàlla yàlla di ma ci boole rek ah ah ndax mag mag mi ñaan li mu ñaan moko xam amatana allah ala din an nabi wa wa xubbi shaykhina al imam tayyib amin amin istajib duaana wa la tukhayyib sayyidi rajaana di ñaan di ci bok rek ila al qiyamah ndax may taalibe la ci bir daayira bi ah

ba ca buntu ba nga fekk ñaari malaaka ñu taxaw ah nga leen fii fan la ñun la mooy al waaw ah, nu la duggal waaw yaa xam waaw ah. billaahi wal waaw ah. ba tax na kon nag ku yóbbu simplifié rek mag mu dul fen moo ma ko wax mu lay ak sëriñ Mansour seen rawaxaan yi ni mu jaxasoo sax ëpp na ah ma seen seen rawxaan moo nanguwul di di songoo nanguwu ko ah. ah moo tax moom rawxaanam isole ko c'est pour le sauver waaw ah. ah. moo tax noonu mu tooge foofa ku yóbbu xam ni moo gën waaw bu fi newoon rek àdduna tukki. moo lu may won ci gént li ci ëpp mag moo ma koy ànd waaw boo gisee ma pardonné sax si sa jinge ci keroog bi mu mujjee ñëw looloo tax ndax ah, dama ko gis ñetti yoon waaw ah, looloo tax di waxuma la boobu ma leen wax ñu won ma xare bi geeru libi bi ñu reyee Gaddafi sax waxu mais yeneen waaw ñu won ma gàmmu Tiwaawan boo xam ne dafa mel ni góor gi dafa réconcilier ak waa Tiwaawan waaw mais li ma jaaxal gàmmu gi kenn defewu ko ci euh, buntu jàkk ji ñoo ngi ko defee ci terrain basket bu Tiwaawan terrain basket ci école garçon wala ñu defee gàmmu ko ñu génn ci buntu kër gi ma ak maag Sëriñ Mansour mun waa nu ñuy def ndax dañuy xaar góor gi comme dafay ànd ak ñële pour dem dañ koy xaar wala ñoon dañuy jiitu ji ma ne ko nañ jiitu ci ñu ànd mak mom ñu dem lima jaxal terrain basket bi de mais fi ñu ñëwé ñu xol tante bi y avait personne te gàmmu tiwawan la y avait personne ñu mo Mansour ni mo wax lu xew mané ko nañ julli ñaari rak ci rew du gor gi mu ni ma du gor gi dafa sori mané ko mu ngi rew du bi ñew na ñu ni ni bâche bi rek muy rewdu sëriñ Babacar ñu kàbbar ñun ñaar julli sunu ñaari rakk fi ñuy sëlmale nii ma seen sii sa jinge waaw mu ñëw root ci suuf tàllalaay loxoom ni ngeen yeesal ma waaw looloo tax waaw ah fakkel xayaali te zuuru ni ah wallaay walay na taytu fa ragbati fi lmashadi wallaay dëgg la pour wax la yu bari yu mel noonu ndeysaan yu bari yu bari yu bari ndeysaan ba ci bu mujj bi nii ah maa ngi gis affrontement yu metti affrontement yu metti yu ma jaaxal waaw moo tax kar tax nga tal ko talu ko de <laughs> jamono boobu Khady Gueye di wuy ji boroom wallaay bu taxawaay amul woon bul xam ñaataay dem kaatim ñii sama seede lañu moog Oustaz Samba Diop bile ah. Ah. man lañ ko wan façon bu ma jaaxal ñu ngi pare benn daje daayira bi mu mel ni genre tournée yu jëkk yooyu nga xam ni dañ daan defee daje bi ci buntu dëkk bi waaw ah, ci village yi noonu nga xam da seen àll bi ni kàdd yeeg yëpp nga di leen seen fa lañu defee daje bi daa ngi seen benn genre rab boo xam ni comme genre Godzilla yooyu ñu daan wane ci cinéma yi moom laa gis mu ngi pare benn foo xam ne dafa bëgg def benn genre soo boo xam bu yegsee li muy gaañ dana bare fekk maa ngi jëm si ci cérémonie bi ñu wan ma mais ñi ci suuf kenn gisu ci ma taxaw nag di ban façon lay def pour ñu éliminer ko waaw avant mbay yegsi mu tëb mais bi mu yegsee benn moustarchid teg la jot xossé xose ba ma gis deret gi di génn kenn kenn ma joxagn ben moustarchid tek mu dal di feux ben affaire loko daj ni rek mu dal di dal di koy déstabiliser waaw te fan yooyu yëlla fekk keneen lañu ma annoncé won sax ni moy dem waaye ma ne ëpp naa def waaw waaw <laughs> wallaay wallaay wax na dëgg wallaay wax na dëgg wax na dëgg wax na dëgg ma ne naa def mukk waaw ah, ñu génneel ko sarax bañ ko génneel waaw ah, ah, waaw ma ñëw naka laa ñëw rek Serigne Ndiaye bi ak Malick ni ma délégué kat dafa feebar ñu ngi ko war a yóbbu hôpital ma ne dem leen rek ngeen seeti ko waaw ca moom mi wax ko la ma koy wax waaw dax na kon ku yebbu sant yàlla rek waaw Eh, bu ko defé ñuy ñaan rek day bàyyante xel rek waaw te ngeen seet li ngeen di def rek waaw bu ma joggé rek gis naa yëpp wax ñoom Serigne ak ñoom mbokk yi ñu ko seqal yëpp jot naa compte rendu gis nga fii yéen ko moom defuma ko woon mukk pour sama ba moo tax gis nga biig dama mujj di téléphoné ni fu ñuy defee daje bi pour wax leen ni pour man jàpp ma ni fii la wala feneen fu ngeen ni foofa la rek ma fekk leen fa waaw waaw pour man waaw étaan na tabarkal la nu mu toll ci yéen nag toll na noonu ci man yàlla xam na ko fierté bu ngeen am ci ñoon am nañ ko ci yéen waaw du tere nag lii ma wax moom doomu aadama doomu aadama la lii ma délégué di wax rek ni ma fii rek la ñuy juume nag waaw ah, fii rek la juume ndax fii la xam waaw du ñu juumee feneen wax na dëgg waaye fekk man duma ma jàpp ni juumle sax waaw dafa bari yu nga xam ni bu jaarul noonu leneen ñëw te duñ leen ko yéene waaw duñ leen ko yéene moo tax rek eh, léeg-léeg dara xew sax fekk na dafa da nga bëgg a sauver nit ki waaw ko bëgg sauver ndax yu bari ngay xam waaw daa na façon bu ne façon bu ne façon bu ne ah façon bu ne ndeysaan waaye nag yàlla jógu fi ah ndeysaan yàlla jógu fi incha allah yonent bi itam jógu fi benn yoon ndeysaan waaw Seyyid Cheikh Ahmed Tijani itam jógu fi benn yoon waaw waaw Cheikh Alhaji Omar El Fouti démb laa mujj wax ak moom ah eh, dafa dama ko boole moom soxna Sophie laa boole <laughs> mooy wax ñoom ñaar lay waxal waaw ah. ñoo dend ci sama archive yi ndax man du ma exposé sama photo kilifa mukk dama koy denc ci roq rek bu wax jotee ma ñëw wax ak ñoom waaw ah. ah. bu dee góor gi ak Serigne Babacar photo bu toll ni rek laa ci yor maam Cheikh bi moo ñëw rek jox ma ko ba ma ko joxee ba léegi ni kaamilu alxuraan laa ko def waaw boobu mu ngi gën nekk ndaw waaw ma yore sama kurus nii di war de fi ma toog nii jékki-jékki rek nii nii rek yem ci moom mu ngi sol grand boobu Mauritanie yooyu ñu ko jëndaloon ca tournée ya dañ ñoo ni ma am waaw ak benn façon boo xam ne rek ma daal di koy nangu def ko ci sama biir calpe bu may voyager moom lay yóbbaale comme kaamilu alxuraan waaw إيسان تان تبارك الله وايش الحاج عمر وصونا السفي نونو لاي واخك نيوم واخ ديمبو لا موجو واخك نيوم نيسان وا شال حاج مالك ايسان بتي بركي ديمو تي بن فوتوم ديسان دافا إيه ييمي دال ايسان ادم ماي خول غورغي سانك فاتي دي ري رك وا ديسان yàlla daal baax na nañ dool di ñaan rek te def sarax te ignoré yu bare waaw ñu ignoré yu bare eh, ko defee rek ñu seet nu ñu doxale rek ngeen seet nu ngeen gérer waaw yëpp nag waaw institut bi lu tuuti la ci li ma pour daayira bi waaw yàlla xam na ko daanaka nag yàlla nañu yàlla mottalil yalla mottalil len yàlla mottalil ñëpp ñuñ ko bokkal kenn ku ne fa nga nek rek nga jël sa responsabilité la nga war dox nga dox ko bi ki dess moy nit ñi tam nañu noppal sen bopp parce que nit du weddi bopam nit du weddi bopam ko xamni taxaw nga fune wax nit ñi dégg ñu ngi enregistrer yépp weddi fi sa bop xaju fi ah yenn responsable yi jékki-jékki melni yu kenn xamul fu théâtre yu ne jaru jaru ko man waxoon na leen ca njëlbéen gën ni leen bu dayre bi desee fukki nit sax ma des ak ñoom kooku wan naa leen ni mbooloo bàyyiwuma ci waaw yow di yëfu jaamur bi ci desit mooy maa ngi sant yàlla mosuma génne kenn la mu yor mosuma génne kenn kenn ca la mu yor ba ngeen ma gisee may yëngu ba léegi ci benn kadr lay yëngu mooy lii waaw ma tax na kon nag war na man sant war na mën simple bu ko defee rek kon ñu bàyyi ko xel noonu ngeen doxal rek li ngeen war a doxal institut bi nag dañ ko def rek outil la waaye du moom mooy daayira bi daayira bee ko boot waaw ah! bu ko defee luñ daan doxal ci dayire bi rek nañ ko doxal fukkam institut bi place bu ñuy dajee di fi nas rek la waaw ah! tax na ay nomination yeeg yëpp dafa tolloog rek li wolof yi wax wa nuñ ko waxeeti ah am na jàppal ma diw waxna deug dëgg na kon nag léegi fokk ñu ni rek diw mu nga ni baatu superviseur mo ngi fi baatu collège père yi am ku nek président yi mais kenn ku ne boko xolé xamni liñ ko jox sax daf ko diisal wa daf ko diisal ndax rek bu sañoon ñu bàyyi ko rek mu nekk ci biir tarbiyaam rek buñ ko soxlaa mu nekk fa waaw tax nag kon nag buñ ko defee noonu rek mu simple waaw tax na kon nag dara changé wu fi waaw dara changé wu fi lu ne na mu meloon dafa yokk incha allah maa ngi koy junjanteeg Serigne Ndiaye mii fa tabarakallah ba tax na kon nag bu ngeen jógee rek ngeen seet gis naa compte rendu yéenay seet rek lu ngeen ci tëral waaw doxal rek man luñ ci jot jot ngeen sant ma nga ni ma ngeen ni ma ay ca waaw man ay ca ngeen gisee tournée yi sax yàlla xam na ne xalaat naa ko ci façon bu nga xam ne dafa yéeme keroog laa ciy waxtaan benn moustarchid dafa ma ji di jooy xàccet waaw intellectuel dëgg la di jooy fekk ma jox ko benn catalogue ni ko genre euh, camping car yi laa bëgg a jënd xam nga lu ma koy doyee mun a ah, man ko tournée yi xam nga ndax turne yi dañu daan dem te léeg-léeg boo bëggee dal fenn dañuy sonal ka nga war a dalal bu ko defee muy sonn di defaraat kër am na ci ñuy dem bay jënd ay climatiseur pour benn bis bi nga fay jaar ma ne ko dafay diis waaw ma ko bëgguma ñu sonal nit ñi ma bëgg rek wut camping car boo xam ni bu boobaa fu mu laaj rek ñu gaare fanaan fa bu ñu xëyee suba fu ñu jëm ñu jëm fa waaw waaw waaw pour wax la. waaw yàlla xam na ko bu ko defee tournée yi danañ ci delluwaat bu soobee yàlla waaw yëpp nag bu ko defee rek ñu bàyyi xel na ñëpp pare seen bopp rek incha allah yal na yàlla dolli sutura yàlla def tawfiq te yàlla bu yaakaar tas te yàlla aar zahiran wa batinan aar baay aar yaay aar grande sœur ak grand frère petite sœur ak petit frère Euh, aar set yi aar ganaar yi ak yi juddi si yëpp yal na ko yàlla def bu ko defee rekk yàlla na kenn ku ne dund dund gu yàgg te mu nekk ci biir tarbiya beeg biir pas-pas bi ñëpp bokk ko bu kenn am euh, arrière pensée ci ni lii laa xalaat ci moom wala lii laa xalaat ci moom mukk ko ca abadan li ma leen wax ni bu ngeen dugg aljanna du ma dugg waaw قالوا له ركلة آه روح وريحان رك آه ليسان آه، روح وريحان رك ليسان روح وريحان رك وهو مفلي مفيلي تنبلي آه بس كروح موي أكسجين روح ريحان موي أكسجين يرم ماذا يلا بولي نياري آه آه آه آه آه آه, آه،, آه. روح وريحان dañ ko yàlla defal fii defal ñu ko fële kenn bañ ko wuute waaw ah, yàlla xam na ko waaw ah, ba ci démb démb non démb génnuma dem boo démb génnuma waaw ah, juma yi léeg-léeg daf may far dikki mais bari ki démb laa koy fàttaliku ci 6 heures maa ngi tiim bàmmeel yi ci wakam waaw ba bu ma jógee ma wax ñoom soxna Ndey Top bi ñu wax bokk yi bu ñu gisanteeg euh, responsable ya foofa ñu ñaan ñu bay ko waaw ndax dootoo gis bàmmeel yi ndax ñax mi dama daf may neex may gis bàmmeel yi ni mu tëddee ndeysaan ak rangé yeeg ni muy demee noonu ndeysaan nga defee bu may ñaan nag ñëpp ñëpp waaw di ñaanaleel ñi ñu bokkal pas-pasu Serigne Babacar ak Seyid Cheikh waaw sunu mbokk mustarchid yeeg mustarchida yi fi fu ñu mën a nekk fii jamii biqaail ard waaw waaw yàlla dugal leen ca waaw leen ko ñaanal ñoom ñëpp soo ko tudd nag soxna su fekk soxna Zeynabu soxna Aminta ak soxna Asiyatu ak soxna Hindu ak ñi ñu tëddal ma tudd leen soo ko mujj sëriñ Babacar ak soxna Sukan soo ko indi faaw fir lana walimam min bayni nene sabun wa min jihati tina fi dunia allah wa samihan walidina wa shuyuxa wa man qad waladu wa dhawi lislami allah soo ko nag globalisé fir li ummatihi warham bi ummatihi wastullaha wajburna rabbi allah chauffeur bi xam na ko ci man ba fu ñu jubee rek mu taxaw waaw ñu def loolu ñu soog a continuer waaw tax na ko nag ëpp naa xeeb ah borom bàmmeel yi di leen fàttaliku am na lu muy def incha allah yal na yàlla yokk sutura yal na yàlla def tawfiq ngeen baal ñu de dégg ngeen lay ndeysaan xanaa xanaa ñu def noonu ko ah ah ndeysaan nañu def noonu bokk ndeysaan ah wa hubbi cheikhina al imam at tayyib Mansour ngay bind naan radina bihi radina bika shaykhan ila axiri dahri lay ndeysaan yal na yàlla boole ñu ko amin inshallah amin incha amin inshallah allah da ngeen fekke yep inshallah ngeen fekke yep wallahi ndaysan yàlla di loolu tëwu ko inshallah ndey waaw moom day ndeysaan tabarkalla ok yaay booy na nga def nekk waa kër gi waaw kay ndeysaan wallaay ndeysaan jërëjëf. Mhm. wallaay ndeysaan. incha allah bu soobee yàlla. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay allah jërëjëf ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw wallaay ndeysaan moom de sama yaayu bopp la. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan soxna Sophie moo ma boole woon ak moom ah. wax ma rek ndeysaan euh, ni mu soree ci moom ak fi mu ko féete loolu tax ñu may ko lenn li ci ñun tabarakallahu am na ñu mel ni moom itam tabarkalla yenn yàlla fay ñëpp te yàlla defal ñëpp tawfiq ah xam naa gàtt na <laughs> waaye bu dee dix minutes sax gisante bi rek doy na yàlla xam na ko ndax loolu lañuy dunde yàlla xam na ko bañ leen di fàttaliku ba ci kanam yi ah ku ne ñu fàttaliku la ba ci kanam yi ndeysaan walaay ndeysaan maa ngi ko wax bi may lire compte rendu rencontre seen rencontre ak superviseur yi ah ba ci compte rendu bi nga bind ah walaay ndeysaan ah façon ba ngeen ko waxee fa tabarakallahu niya ah, baat ba nga waxoon seul contre tous la ñu fas yéene doo amati ah waaw incha allah ah, mu mel ni ko yóbbante sama mbokk bopp bi Babacar Ngom wa tabarakallahu ba ma ko xamee ca bu jëkk ba ba léegi fa tabarakallahu Babacar ma waxawoon rek laa xam ba léegi waaw ci yéen ak taxawaay ak lu ngeen foog ak lu ngeen foog rek di def lu bari ci seen tur yàlla xam na ko waaw di ko def ci façon bu yéeme sax ba bërki démb bi ma jógee voyage ndeysaan maa ngi ko yóbbante ci moom nga defee sant yàlla rek yàlla yàlla taxawu ñëpp maa ko wax sëriñ di ko ko yóbbante ci mbokk yi yëpp ku nekk ak sa taxawaay fa tabarakallah eh, tabaski baa ngi ñëw jot naa compte rendu yéeg yëpp yéen ko moom yéen ko moom fa tabarakallahu waaw ndax ya ñu yéene ëpp na waaw ah, ya ñu yéene ëpp na incha allah waaye ku nekk rek ak sa gis-gis dama ko wax benn nit bërki démb waaw ndax daf ma téléphoné lu booba maa nga ca àll ñu ni ma nee dafa am yéene pour billet Makka bi mu yor nii mu bëggoon ko jox Pape Katim waaw ah. ma ne ko wax leen ko ni ko Pape Katim daf ma waxoon ni ma ku la fi ñëw ni la ma yóbbu Katim Makka ne ko mënuma dem ndax li ma nekk ci tarbiya bi moo ma gënal Makka waaw ah. ah. waaw waaw waaw waaw ma ne ko loolu la ma waxoon ni ma ku la fi tàggu ni dama bëgg a yóbbu kaati màkka rek gàntul ma ko waaw wallaay waaw wallaay ndeysaan mhm. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan من لا ينسان استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم <laughs> <laughs> تبارك الله لا إله إلا هو يين بوب نيم كو بوكال باري نان آه. امنا سي ньо خام دانيي ديم مكه ني رك ngir ziar ni rek ak rek walu pénc waaye la yaakaar ak fañ ko yaakaar wax naa ko keroog fii ci suñu daje fii ci salle bi ah, ak ñoom Oustaz Samba ñi ba ñu demee Makka mook ñoom Oustaz Chidaat fu ñu toll foofu daal di téléphoné ne nee leen ko ñu ngi place sàngam. man wallaay wallaay wallaay. ma Oustaz Samba ñu ngi téléphoné ñu ngi Mérine. Mm-hmm. nga ma kàddu dañuy waxtaan mu téye sama loxo yi di ko xëcc. waaw wallaay. ku ko la ku la jox billet Makka. kantelal mhm. ma. loolu mooy kantelal a ajag si biir. mais bien sûr. mais loolu aussi ngay wax. Mhm. damay bañ ma ubbi wax ku nekk bëgg a wax. um, mhm. que day day mu euh, mu. tey désordre. Serigne Ndiaye nii. mat na un mois. ñu jox ko mu woo ma. Mm-hmm. ni ma kaay ma yónni la nga dem si mbokk mi. Mm-hmm. ni ko euh, sama dem màkk jotagul. wallaay ndax dama nekk si mission. Mm-hmm. man maa dem ba si mbokk moomu delloo ko biir. bi. beneen bi itam. dimanche nga ma ko wax. yaakaar naa sëriñ bi jëm woo ko si benn xaal. ana Babacar Thiaw. loo xam ne. nag. si li nga yore. Mhm. ñëpp pare nañu. mu mhm. jaay seen bopp yow. Mhm. loolu moom lu ma wér la. mu set di juddoogul sax pare na mu jaay boppam. ku trahir nag affaire am la parce que itam. kàllaa bal xam ne allah kuloo bi. maa kan yokk si buur. ak summun. bukkumun. xom yun. mi ngi fi. ñi war a dem. xam ku ñu dem mais ñi warul dem. ñu dem ñu ci àddina. mais njaboot bi nga woo tey. si kaw ne ni fiy feese. principe la ñu feese. kon mmh. tey mmh. mmh. pour loo wax. dama la wax bëgg démb ni la. yow yaay un yaay deux. yaay zéro. waxuma ah, dëgg la yaay un yaay deux yaay zéro. soxlawuñu ay ay intellectuel. waxuma la sa kaddu gi jóg. bu sa kaddu jógee ñëpp a jublu. allahumma salli ala sayyidina. wallaahi ndeysaan barakallahu ndeysaan wallaahi ndeysaan ah waaw. nga am na ko daan faral sax di xaw respect bu ko Malick Massane di wax ci université Ramadan di wax huwa awal wal axir zahir wal batin am ñu muy xaw choqué waaw ma nga baal mooy li ma wax ni moo ma gën ngeen baal ma de man dem naa ba ñu tàgge ma ba ñu tàgge ma wallahi tallaay ni fayeeku dele Mm-hmm. biñ may jël si ay romain ak ñu sol tëri romain. ñoo ma jël si. Mm-hmm. wallaay. ngeen baal ma ne jag suñu satuloo buñ ma suñu. ma doon toggal. Mm-hmm. si sama dëkk. billahi buñ si ren di ma ëpp saag bi. mais benn malaaka bi ñëw dafa ñëw. ni ma. xet da

ديسان الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والله ديسان بارك الله اماتنا الله على دين النبي وحب شيخنا الامام الطيب امين امين استجب دعاءنا ولا تخيب سيدي رجاءنا ها من يلا يلا دوغل شبير ak ñi ñu am ñépp wa tabarakallahu di gën a seedeel sunu bàyyu dayire yeeg sunu yaayu dayire yi fa tabarakallahu tabarkalla am na loo xam ne bu ci njaboot gi de ñeme ba yegg si fenn fii ñoom bàyyi amuñu morom fa tabarakallahu am na ci ñu amul morom fa tabarakallahu ak yaay yi tabarkalla ci taxawaay yu yëpp responsable yu tout le monde ndeysaan waaw le na tabarkal rek eh yenn yàlla mottali ci niveau yep commission féminine du ci niveau cadet yi boo gisee bi may wax ndeysaan fii ci journée ma soxna ne ko kula doy rek nga liggéey ak mom ndax mom dafa am lu may comprendre gis nga Khalifa sar bile dafa jël góor gi Abdurahman ci ben façon def ma sa jaxal xam nga góor gi Abdurahman góor gi mooma boole woon ak mom bu masaan ñëw gàmm maa koy boyalal furno bi muy defaree ataayam donte neexu ko woon mu toog nii góor gi Maxtar Ba bu toog nii góor gi lamin Mbay bu ndar toog nii ñoom daan bokk néeg waaw ci lañ daan échangeante maag moom xosaayit yu góor gi def ak discours yi foofu lañ ko daan defee fekk muy indaale magnétophone bi waaw waaye dafa am benn jamono bu nga xam ni góor gi moo intervenir ndax daf daan def bu bëccëg jotee ñuy yenu matt yi di ko yóbbu ca waañ wa moom góor gi Abdourahman mu dem summi ay mbubbam dem yenu ci sayu matt di ko yóbbu ca foofu la magasin wu matt bi nekkoon ci wetu néegam en face waaw dem yenu ko góor gee ko mujje tere daf daan am sax xaal ne ay waay waay góor gi sama yiw bii waay góor gi ni ko nga alak nit moo gën yomb fi mu ne waaw xam lu tax waaye loolu moo am ci xalifa ndax nit moom doo ko fekk ci tarbiyaam sax nga ne ko bàyyi li ngay def waaw ndax loolu lay dunde looloo tax keroog bi may wax ndey xadi pour seetal koo collaborer boobu mu ngi toog te mu ngi ci biir commission cadre yi waaye cëram dafa ëpp yooyu yëpp waaw maa ko xam waaw daa rek ci responsabilité ñu